di wane ne moom mën naa ñàkk waaye du tax mu dugg ci mukk lu jaaduwut loolu jikko bu ñu war roy ci moom la xasida bi am na ci yoo xam ne war nañ koo roy ci moom am yoo xam ne kenn waru ko ci roy bokk na ci liñ ko war a roy mooy nekk bañkat du toroxal boppam mukk ngir ak ñàkk mu doon waxit ne ku ñeme coono la ñeme coono yi lu baax la ci doomu aadama ndax dana tax doo gaaw a caalik ba dugg ci yow warul dugg dem ba ne bu gëjee ci xare yi la xare yi kontaan ci moom moo gën a gudd xare yi yàgg nañoo bég ci moom mooy wane li tax mu gëj ci xare yi mooy tari du jinaayatin kuñ daq ngir ay tooñ laa te yaa na yoo xam ne carte nañ lax moo yàppam fii bu la neexee nga firi ko lam ci am mooy te yaa na saam nañ lax moo yàppam xaqiiratuhu lañ corom mooy lañ lañ dagg ci yàpp ya wala xaqiiratuhu yàppam li ayiha ñexel na kum ci tooñ yooyu xumma dogaleef nañ ko awalu bu njëkk mu ne li tax mu dëkk rabi àll yi dematuma ci xare yi mooy damaa tooñ tooñ yu bëri tooñ yooyu nag bu nekk mu ngi may dàq maanaam ña tooñoon kenn ku nekk mu ngi may topp tooñ yu bari na bëri goo xam ne mën wax ne séddoo lañ sama yàpp ku nekk am na lu mu jël sama yàpp mel ni sama yàpp yi dañ ko jël saam ko pour ñi ma tooñ waaw buñ daggee rek kuñ na yow rek yaa moom loolu buñ daggee dara sama yàpp kuñ ne yow rek yaa moom loolu noonu la ñuy sàmmee sama yàpp ba mu jeex maanaam ñu ngi ma topp pour fayu tanaamu dana nelaw moom tooñ yooyu isa ma naama bu nelawee moom borom tooñ ba waaye yaqza mbir mu ñu yeew uyunaha seeni bët ñoom tooñ ya tataxalxalu danañu xóot ilaa makruhi jëm ci luñ sibam xisaasan mbir mu ñuy wa yàkkamti bu bët yi gëmmee it mel ni tooñ yi nelaw na borom tooñ yi nelaw na nelawuñ ñu ngay xoole maanaam damaa tooñ ay nit yoo xam ne nii saa yu ma nelawee ñoom ñi ñoom ñoom mënuñoo nelaw ndax bëgg fayu toujours rek dañuy bëgg xóotal fayu ci man te dañ ko yàkkamtee lool mu ne tooñ yu mel noonu moom laa tooñ moo tax mënatu nekk ci dara dégg ok bu ñuy nelaw seen bëti xol yi moom ak seen xol ak seen mer gi mu ngi mu ngi yeewu wa il fuhumu min aji taqoo njàqare laa yoo xam ne ma tazaalu dañu taxudu di ko seet si iyaadan ak seet si ka xumar rib i mel ni feebar bi jëlal ñaari fan aw huwa wala moom asqalu moo gën a diis feebar boobu mu ne damaa taqoo njàqare goo xam ne nii njàqare googu dañu di ma seet di ma dikkal ba mel ni feebar bu ñuy tuddee xumma ribi feebaru xumma mooy si buru rek ribi mooy bu ñëwee benn fan dafay jël ñaari fan ñëwaat jël fan ñëwaat si bisam ñeenteelu kon moom bu ñëwee jël ñaari fan xam nga loolu ñetti fan la bisam ñeenteel bi mu ñëwaat feebar bu mel noonu day ñëw jël ñaari fan ñëwaat ñëw jël ñaari fan ñëwaat feebar boobu ni muy sonalee nit ki mm-hmm. noonu la ma njàqare yi sonalee noonu la may dikkalee wala sax njàqare yi moo gën a tar feebar boobu hmm. kon moom dafa am ay njàqare ay tiitaanga yoo xam ne nii duñ dañ di ko dikkal mukk suñ demee ba yaakaar ne jeex na rek mu ñëwaat hmm. waaye nag isa waradat bu rotee moom njàqare yooyu asdartuha ma dàq ko hmm. waaye su ma innaha topp moom tawubu day dellu si wala tasuubu day dellu si ñaari benn la fa taati muy dikk min tuxaytin ci ron wa na alu ak ci kaw mu ne njàqare yi lu muy tat Nah, ko dakk mu dem hmm. ndax man jambar la kau su ma ko dàqee it fay delu si war rek hmm. di jaaree suuf ak ci kaw fu ne ñak re yu joge di ma dikk dégg su ko da fay wax ay problème ak ay jafe jëm ci xasi ci bayt mu ne fay ma taree ni bo ma gisé hmm. yow ndaw si këm nati ram li mu mel ni doomi beñ ba te mooy jaani yi ruut ci beñ yi ñoom lañ tuddee ibnatu ram li daaxiyan mbir mu aji ceeneeru ceeneeru foo fekk mooy koo xam ne dafa jàkkaarloo gent bi dara muuru ko ala riqatin ànd ak sew ak mbir sama mbir dara baaxu ax faa may fandaañu ooma daal wala ata naaluta du ma sol daal soo ma gisee mel ni jaan boobu nga xam ne dafay jàkkaarloo gent bi sama mbir sew lool doyadi lool may dox ak tànki neen xaw ma dàll yu ma sol bul yaakaar ne muñu ma de fa inna nii naka man la mawla sabri borom muñ laa wala la mawla sabri aji méngoo muñ laa ajtaabu dana ma dagg bëzahu ko daayab muñ ala misli qalbi simi mel ni xolob tilla bu warale mooy doomi tilleeg bukki mooy simu ku neex nopp lay doon wa afalu danaa jëfandikoo alxasma xel soo ma gisee ci situation yoo xam ne yaakaar nga ne maa ngi caalik mu ne caaliguma de man muñkat laa damay jël koddaay muñ sol ko muñ bu doon yére nga ne dagg naa ci koddaay gu jot sol ko sama xol bi dafa dëgër mën a muñ ba mel ni xolu simu mooy doomu tilleeg bukki te sama xel mi tuur dama koy jëfandikoo du ma defee mukk ngir ne sonn naa du ma def mukk ngir caalik du ma def mukk ngir mer toujours damay defee xel loolu la seen fara wax mu ne waa di mu dana ma ñàkk axyaanan léegi-léegi wa ax naa dana ma koomal it léegi-léegi way na maa yenaalu naka dana am alxinaa koom zul bondati kay borom ak sori almutabazilu ka aji fitteeku mooy koo xam ne ba simmeeku fitteekul def nangam góorgóorlu rek waaw mu ne léegi-léegi ma am léegi-léegi ma ñàkk comme ñëpp rek léegi-léegi affaire yi neex ma am léegi-léegi ma ñàkk noonu rek laay dundee soo bëggee am nag danga nangoo tumuranke danga nga nangoo simmeeku sa yëri yu rafet yu sol yëri yu yu doye de hmm. waaw waaw nangoo dund loo xam ne nii neexut hmm. pour mën a am koom fala jazihun déet mi aji tiit min xallatin ngir aajo mutakashifun bi aji wuññeeku hmm. wala bu mutakashifun di aji fala eh, mutakashifun di aji wuññeeku hmm. fala jazon déet ma aji tiit mutakashifun di aji wuññeeku min xalatin ngir soxla ngir aajo hmm. wala marixun déet ma aji sigirlewu ata xayyalu di daagu taxtal xinaa ci koom mu ne man ko xam àdduna la hmm. sama sutura bu xaawee ko ma xami soxla du tax mukk ma jàq di tiit mel ni àdduna day bëgg a tukki waaye su ma xamee koom gu bëri du tax may daagu di puugarewu di sigirlewu mel ni maa gën nit man koom du ma yóbbaale ñàkk duma ma yóbbaale maanaam li waroon di wax du ma du bi jikko bu ñu war roy ci ma gis سأولا ما لا يكون أنمل ما يتخل بأعقاب الأقاويل تمجا وخي من ريري ريري ما نياك mooy جف يدوي yi jëf yu xamut yi jaxlu bu ànd ak xel mu boo ko comparé xel mu loolu lay firi mooy ku ñëw becc ngal la waxal lu mu la warul wax wala mu def lu mu la warul def wala mu ñàkkee la kersa ah mu ne loolu mënu yóbbu sama lewet mënu teema bañ a lewet hmm. ni ma mel rek laay mel du soppeeku ba mu réer jëf yu dul noonu du yóbbu sama lewet man saa su nekk damay lewet lewet mooy lan lewet du mooy nga sëgg ku ñëw dóor la du mooy nga sëgg ku ñëw teg teg tànkam sa kaw jàll waaye lewet mooy kenn du la def loola wóoru def kenn du la wax loola wóoru wax mm-hmm. mu ne nag réer man du tax mu bu ma def lu ma wóoru def becc nga du tax ma wax lu ma wóoru wax mm-hmm. waaye duñ ma gisit ma nekk waa jooju nga xam ni damay laaj nit ñi mm-hmm. aw ma jom du ma liggéey du ma def dara li nekk ci loxo nit ñi laa yaakaar te xam nga képp ko yaakaar li nekk ci loxo nit mooy dem si nit mu wax la dara nga dem ci nga yaakaar ah, diw de wax na nangam wax na nangam nangam nga gis nga diw lu mu def yow diw def laa contour diw def laa nangam pour mu jox la dara hmm. lii gars yi di def si diggante sëriñ yi rek hmm. di di rambaaj rek hmm. pour laan pour wut luñ am mu ne man du ma def loolu nekkuma laajkat boo xam ne damay toxal mujj wax yi jël jëlee ci kii wax dem yóbbul ko kële ngir wut ma am du ma def loolu de walaylati naxsin bari na guddi muur guddi gu ñàkk muur mm-hmm. maanaam guddi gu naqari guddi gu texaadi mm-hmm. bëri na guddi gu texaadi mm-hmm. yastali nga xam ne dana jaaroo fii lu ci ne moom mooy guddi sedd wala bu neex ma ngoo fi de wala laylati naxsin bëri na guddi sedd yastali dana jaaroo alqawsa xalag rabbuha moom wa aqtawha ak bantu fettam ëllëti bi nga xam ne yitanabbalu dana fettee bihaa ci moom bëri na guddi gu sedd sedd ba nga xam ni arab yi nu ñu fonke woon seen fett yi dañuy jël xalaga mooy fa ñuy def fett gi damm ko bant fett bi ñu damm ko taal ko ngir jaaroo ko xam nga guddi googu sedd na dem ba ngay damm sa fett bant fett bi pour jaaroo ko guddi gu sedd na bëri na guddi gu sedd ba mel noonu daastu jeñ naa ko ala gatchin ci kaw lëndëm wa baxchin ak ak ak taw wa soxbati samay àndoo jamono boobu suaarun xiif la guy lakk hmm. wa irzizun moom wa irzizun la def hmm. ak ak sedd gu tat hmm. wa wajrun ak ak njàqare wa afkulu ak lox lox bëri na guddi gu mel noonu man ma xuus guddi ga jañ ko xëtt ko fekk boobu mu ngi lëndëm tërës asamaan ci taw ma xiif ba xiif bi lakk sama biir bi sedd bi tar lool njàqare yi tar lool yaram bi di lox noonu laa xuusee guddi googu man yàgg naa dugg si coono de dafa wane ku ñeme coono rek ñeme coono nag lu baax la waaye nag ba mu guddi gi li def moo nekkul <laughs> ndam daal mu ne lu ma def mu ne fa ay yemtu ma ñàkk loo jëkkër li suwaaleen ay jigéen mm-hmm. wa ay tamtu ma jirimloo wildatan ay xale hmm. waxuttu ma dellu kama abdatu comme nu ma commencé woon wala yilu te guddi gi alyeelu aji tëdlanam la guddi googu xëtt naa ko hmm. dem rey ay góor seen jigéen yi ñàkk jëkkër seen doom ñàkk bàyyi hmm. ma delluwaat fu ma jógee woon te guddi gi xaajut maanaam jàmbaar laa daal eh, mais lii du rey ay nit du kenn nit yonentu daf ne laysa shadidu bi sira innama shadidu man yamliku nafsahu inda alxadab jàmbaar du koy dóore di songe di rey nit kooku dof la kooku bakkanam moo ko not moo tax muy def loolu bu doon jàmbaar day not bakkanam ba jubóob yàlla hmm? Hmm. kooku mooy jàmbaar ku not bakkanam du ko def loolu mu du am bànneex bëgg bànneex ba def lu mu waru def du mer ba def lu mu waru def waaye koo xam ne bakkanam mën na ko nu mu nekkee jàmbaar hmm. yéenu nit ba mu baax nga dóor ko suuf léegi après léegi ban ndam moo ci nekk su fekkoon doole moom lay nit ñi di noté kon doomu aadama wax dëgg yàlla na du yëlif géem du yëlif nag mm-hmm. ñu ñu mm-hmm. la mais du mm-hmm. wax nit kenn mënu ko ëpp doole ci tous les côtés da nga koy ëpp doole ci yaram <coughs> moo ëpp la ci yoon ñu tëj la léegi moom mu dem doxi soxlaam yow nga nekk ci benn digg boo xam ni moom moo la fëttee kon am nga doole boo amoon doole kay loolu moom du la téye mais li nga ko def moo tax ñu téye la moo la ëpp doole. Mm-hmm. foofu hmm? mm-hmm. waaw wala nga am doole ëpp ko doole ci côté yëpp. Mm-hmm. mu ne yaa rabbi yàlla gàllankoor seen mbir léegi. moo la ëpp doole doole doomu aadama kon ñàkkut doole. Hmm? loolu waral euh, euh, agressé loolu du lu ñu war a puugaroo lii bu leen ko ci roy wa asbaha xëy na an nii ci man bil xumaysa yi ci barab bu ñuy wax xumaysa jaalisan aji dem jalas jalas ci tur najd yi bokk moo tax ñu dégg fi rek jaalisan aji dem boo xoolee baat bi jotewuñ dara jaalisan aji dem jalas jalas tur la ci tur najd yi ay nit toog ca sa ñaari kuréel war a dem najd ñaari jaalisan ñaari kuréel yi war a dem najd fii musal naa la wooyu moo tax dagg fariqaani ñaari kuréel la mhm. masulun ku ñuy laaj wa axaru keneen ka yes alu mu ngi laaj ñaari kuréel yooyu ñoo toog di waxtaanee sama mbir bañ xëyee dafay bàkku agressé gi nu mu ko defee mm-hmm. nu mu yéemee bañ xëyee ñaari kuréel yi di waxtaanee sama mbir mm-hmm. kii mooy laaj kii la ñuy laaj lu ñu wax fa qaalu ñu ne laqad harrat bow na mm-hmm. bi laylin ci guddi gi kilaabu naa suñ xaja ñu ne ah ñu ne dem si guddi xajara lañ dégg ñu béw بيبغي بان اغري سي غرا لو ديف فقلنا ني ازيب ندخ تل عصا مو ور ام عصا ولا ور نفر علو دومي بوكي عين لا ديف من بن خي دنا ني سن خدي ديم جي غدي بو ناي غانا واو اب تل لا ولا دومي بوكي ام بروانه موم لي مي ديف دو ام بيروي dafa oyof oyof ba gaa yaakaar ne moo fa jaar wala doomi bukki fekk moom la mhm. ñu ne faram takku nekkutoon illaa nab atun lu may ab yëngatu rek suma xaw ma topp mu nelaw mhm. fa xun naa ñu ne xataatun printemps ria tiitaléef na mhm. na xaj ba maanaam printemps moo tax ñu tiital ko am ria wala tiitaléef na ko aj daru baqaar euh, wala jéegét yaa jaay ne ab yëngatu la yëngatu rek daal di dalawaat ñëpp nelaw mm-hmm. ab yëngatu bu gàtt moo am rek xaj yëpp nelawaat ñu ne ah mën naa am përëmtaan piccam përëmtaan moo tiital xaj yi mm-hmm. ñu ne piccam jéegit moo ñëw naaw fa tiital leen rek waaye du dara dafa bëgg wax ne moom la muy def bëriwul biir bi rey nit ñu bëri ñi te dëkk bi yëpp coow yi loolu yombut bànn bu mag moo ko man mu ne moom bànn bu mag la fay yëkku gaa yi ne bu nekkee min jinne mm. wa in yëkku nem nekk na insan di nit maa yafal def al insu nit kahaa comme moom gaa yi ne ah ku ñëwoon démb si guddi de bu dee jinne la mm-hmm. ay jinne ju garaaw la de jinne ju mën a euh, dox guddi la mm-hmm. bu dee nit de nit daaw def lii loolu mm-hmm. bëgg wax ne moom bànn bu mag a mag la ni muy agressé daf lay dafay jaaxal ñëpp wa yow mun wa yow min bëri na bis mi ne chienra ci biddiwu chienra yazuubu dana yuut mm-hmm. dana seey lu ay yuutam mm-hmm. am nañu def lu aabu waaye moog lu benn ren mm-hmm. afaaxihi ay jaani ñàngooram tata malmalu dana boddar miku fii ramdaa'ihi ci beñam bu tàng ba cira bi diw la bu tàng bàyyi tudd na ko de ci waxtaan bi bëri na boo xam ne dafa tàng ba mel ni biddiwu cira mooy tab mooy ruyal ay yuutam muy wadd ci nit jaani ñàngoor yi lii ñeme ñeme tàngoor ñu ngi boddarndiku ci tàngoor bi maanaam boddarndiku mooy mooy di yëngatu xam nit ku tëdd ci laram tëddwaay bi normalul ni muy yëngatu noonu mooy tëta man madu jaani ñàngoor yaa ngi boddarndiku ci beñ bu tàng bi bëri na bis bu tàngee noonu na sabtu samp naa lahu ñel ko waji sama kanam walakin na tëddet kiiraay doonahu di ko yées bis boobu wala sitra amul lu ma suturaal illal atxamiyu lu ma yërëb atxamiyu al mu raxbalu te bu wane moom ku ñeme coono la bëri na bis bu tàng lool ma jàkkaarloog moom nekkuma ci nekk bu ma aar tàngoor bi aw ma mbaar bu ma aar tàngoor bi aw ma yére sax lu ma yére at xam yu ñàkk solo yooyu te dafa xotteeku sax moom laa soloon bu doon tee nga ne fëgg jaay yu xotteeku moom laa soloon kon ku ñeme ta jafe la bëgg wax mm-hmm. wa daafin ak karaw gi aji law li tax de li ma aar tàngoor bi mooy yére bu xotteeku boobu ak karaw gu gudd isa habbat upp na lahu ñeel ko arixu ngelaw ya te yarat mu naawal la baa ida ay njubbu ay létt mm-hmm. an aata fii ci ay wàllam mm-hmm. maa nga xam maa turajjalu yoo xam ne peñewuñ ko jaratuñ ko mooy peñewuñ ko mm-hmm. am naa karaw gu gudd nag goo xam ne nii dafa tilim lool taq lool bu ngelaw li uppee rek nga gis wàll yi di naaw hmm. xam karaw bu fekkee dafa tilim taq ci nit ki hmm. <laughs> karaw gi yëpp mënul naaw hmm. wet yi rek cat yi rek ñooy naaw mu ne bu ngelaw li uppee cat yi ñooy naaw ndax karaw yi dafa taq ci samay wet yi ba ndax pene wuñ ko defuñ ko dara karaw gu tilimee noonu yàgg naa ko am ndax yàgg tuumuranke baidun aji sori la bi masid duhni ci laal ak diw wal falyu ak teeñ ahdahu lu gëj la ci moom mm-hmm. karaw la goo xam ne gëj naa gëj naa koo diw mm-hmm. waaye gëj naa gëj naa koo reyal teen dindil ko ay ay rab yi nekk ci biiram mm-hmm. lahu ñeel na ko abasun ak tilim fin bi aji ràpp moom karaw googu muxwilun bi aji atu minal xasli ci raxas wala minal xisli ci raxasukaay xislu mooy jumtukaay bi ñuy raxasee karaw xaslu nag mooy raxas mu ne karaw la goo xam ne nii dafa tilim ràpp bañ ko gëjee raxas ak léegi wala bañ ci bañ ci gëjee def luy raxas karaw ak léegi mat na at mm-hmm. loolu mooy sama karaw bëgg wax ne moom ku yàgg tumuranke la ku ñeme coono la mm-hmm. wa xarqin bëri na àll mm-hmm. ka zahri tirsi man ngaa wax tirs man ngaa wax tursu mel ni gannaaw ak pakk pakk mooy li gars di défendre ci xare bi oh. xafrin kay payangaan xam nga pakk amul benn gàncax bu ci sax hmm. amul ndox mu fa nekk hmm. dafa bëggoon a eh, bëri na àll bu wéet boo xam ne amul gàncax amul ndox hmm. moo tax mu ne xafin kay perengaan muy àll bu wéet xataatu dagg naa ko bi amile tey si ñaari tànk yi way jëf zahruhu te gannaaw àll boobu lay su nekkut yomb ñu koy jëfee tànk bëri na àll bu naqadee dox gudd lool jëfe dox lool ma doxee ko sama ñaari tànk yi te ñaari tànk daaw ko dox moom nag ku gaaw la woon Hmm. si cosaan ku gaaw loon da doon daggeeg sax juri hmm. moom seen fara waaw li muy wax ni dëgg la ñoom lañ nekku di wax ay wax waxantu nii rek ñoom lu ñuy dund rek moom lañuy nekk di bind di wax waaw ku ku mënoon dawloon hmm. faal xaq ma yéegee ulaaxu commencement wu àll ba bee xuraaw ci mujjeg àll ba dox naa àll ba ba mu jeex te ni daaw ko dox man ñeme naa coono de loolu la bëgg a wax mm-hmm. mu fi yen di aji sapp maanaam ma dem ba taxaw wala xunnatin ci doj mm-hmm. uf yi may coofeerlu di toog di ferankulaayu mm-hmm. miraaran léegi-léegi wu am suur wu may taxaw miraaran léegi-léegi dem naa ba ci mujj àll ba yëg ci kaw doj nag taxaw di séentu léeg-léegi ma toog léeg-léegi ma taxaw yàgg naa tumuraanke ni dem ci àll yu sori yi taruudu mu ngi baagante al awa al araawi sikkatu doj yi sikkatu doj rab la woo xam ne nii ragal nit la mm-hmm. ci kaw njubbu doji la ñuy dëkk mm-hmm. ak sox muy la way xóon nga xóon jàng nga ko ci baat yu wutee yépp mooy lu jeng jam ci ñuul xawli ci la ma wër sikkatu doji dañuy baagante ci li ma wër ka annaha daf mel ñoom azaara ay xiig lañ xiig mooy jànq boo xam ne ndawam nga dañ agut mosu see góor mm-hmm. alayhi na nekk na ci ñoom almalaa u mëlf ba xeetu yére la almuzayalu yére yañ defal mbicc mooy cet sikkati doj yi ñu ngi ñu baagante di ma seet si mel ni si ñoom laa bokk dem naa ba mel ni rabi àll yi maa ngi ñëw dëkk sikkati doj yi lu ñuy ragal ragal nit dañuy ñëw di ma seet si di garam ci man. Mm-hmm. bu ñu ñëwee nag seen karaw yu sëq yooyu dafa mel ni ay jigéen yoo xam ne ay jànq lañ sol ay mëlfa yu am ay cet noonu la seen karaw gi mel karaw gi la néew léegi mëlfa yi. sikkati doj yi rafet gi rafet mu néew leen ay jànq. Mm-hmm. weer kur na dañuy dal bil asaali ci ngoon yi xaw lii ci la mu wër mm. bu ngoon jotee si kër daji ci man la ñuy defee garam place ci man la ñuy féexloo ci man la ñuy kontaane mm. ka an na ni dafa mel ni man ad fa maay aji rëy béjjën enqalu mm. ki ëpp kaaraange yan taxi dana jublu al kiixa walla doj wa min dem naa ba mel ni ci ñoom laa bokk waaye nag bu ma bokkee ci ñoom maa leen mën de moom saa yu boolee ci boppam ci rab yi dafa naan maa man rab yi bu ma bokkee ci ñoom xamal ne maa ci gën a rëy béjjën mm-hmm. maa ci ëpp kaaraange mm-hmm. maa dëkk ca wetu doj ku bëgg dugg ci doj bi rek songu gars yi ci man ngay njëkk a jaar mm-hmm. dem naa ba mel ni sikk doj yi laa bokk waaye maa leen mën bu ko defee lii mu bëgg wax mooy moom yàgg naa dund ay jafe-jafe yoo xam ne nii néew na attan ko te jafe yooyu daaw tax mukk ma dugg ci lu mu war a dugg danaan agressé comme ni ma ko waxee mais ay bandi ay saay-saay ay ay nit ñu beew nee na ñooñu rek la doon songu mais néew du doole yi daf la doon dimbale mm-hmm. dégg nga in uriidu al-islaaha foofu la xasida bi am mm-hmm. in uriidu al-islaaha ma stata'tu wa illaa billaah alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib assalaamu aleykum wa wa barakaatuh